jëlal pétrole ñu ne la les premiers barils bu ñu génnee bato ba da koy génne réew mi mhm. ma nga jëm Allemagne ma nga jëm Belgique ma nga jëm ci ay raffineries étrangères mhm. gaz boobu ñu ne la bon ce qu'on veut mooy gaz to power muy muy gaz bi ñenn nañu ne la attention boo moytul mën nañu ñëw def ko gaz naturel liquéfié mhm. génne ko parce que am na réew yu nekk Europe yoo xamee ni ñoom bàyyi nañu pétrole bi gaz ba la ñu soxla mais li ñu moom bu dee moomuñu ko dina jafe moo waral il faut leeral juba jubantil jub jubal jubanti leeral bi leeral bi mooy vous avez du gaz on nous parle de neuf mille milliards de mètres cubes mais où vont ces mètres am na benn kuréel gu ñu fi teg Euh, cos pétrogaz la tudd ñu ne ñëpp a ngi ci biir mais man fàtte naa sax cos pétrogaz ndax ñu ngay réunion wala ñu ngay def ay communiqué il s'agit pas de venir sortir nu kii def benn communiqué kan moo koy liir ñun ñoo koy mën a lire peut-être ci presse wala ñenn ñi nga xam ni ça les intéresse directement ay intellectuels entre autres mais lan moo tere ñu ñëw ne sénégalais bi yow mi sénégalais dëkk fële ca Fongole mi wala jóge fële ca ca ca ca Kédougou Saraya wala fu mu mën a doon am nañu gaz gaz bi nii la demee mm. dina am loo xamee ni dañ ko fiy soppi dina am loo xamee ni Petrosen dañuy jaay bombon de gaz ki ko fa liggéeyoon dañ ko fa jële te pourtant du woon politique mm. muy menace am première premières de gaz yu ñu bind Petrosen muy loo xamee ni Sénégal ko moom mm. man bés bu ma xëyee ca boutique ba dem jënd fa gaz boo xamee ni Sénégal la jógee prix bi wàññeeku bu boobaa naa naan lii ñu moom ñoo ko moom mais jusqu'à preuve du contraire pétrole bi dégg ngeen ci am président de la république premier ministre mm-hmm. ministre bi ñu dénk wàllug mine xam luñ ci am toq bañ leen jox defal leen ko ci kii indil leen ko ca palais pour wan leen ne premier first oil baa ngi nii mm-hmm. loolu lañ ci am loolu kese lañ ci am pour l'instant amuñu ci leneen parce que yëpp dañ koy génne euh, Nigeria ah. euh, chaque jour ñu wax ko fii quand le président de la République euh, di euh, euh, def gis na situation wu euh, Aliko Dangote mm-hmm. bi jël xaalisam mm-hmm. pour defar raffinerie bi l'objectif raffinerie bi moo nekkoon lan voilà Tinubu dafa xool ne ni kii de war nañ ñun en tant que Nigérian jàppale ko pour jàppale suñu bopp parce que raffinerie bi mu ubbi def ci ay milliards c'est pour pétrole bi ñu am ñun dootul génn ñu ko yóbbu ci bitim réew di ko raffiner di ñu ko indil di ñu ko jaayaat à un prix boo xamee ni yow tu as une raffinerie qui te permet nga mën a defar sa pétrole boobu raffiner ko mu mën la indil produits pétroliers yi nga xamee ne soxla na ko ba booy jënd essence sa essence ngay jënd sa ak main d'œuvre beeg ñëpp mm-hmm. on a la SAR la SAR te dit que maa ngi woon ci un million pour baril pétrole euh, par jour yu ma mën a kii waaye yokk naa ko maa ngi un million cinq cent mm-hmm. mais fexeel ba ak contrat yi ngeen mën a signé moo tax revoir les contrat qu'on avait signés mm-hmm. am importance parce que dañoo signé woon loo xamee ni ñenn ñi dañ jàppee contrat na mm-hmm. ba ñeneen ñi ñoo ci ëpp ñun duñ ci am il faut que ñu toog ñu lijjantiwaat lool ba li ñu moom ñun mu jóge ci suñu suuf mais ñu mën cee bénéficier wu lor laa tëgg yee may dégg or bi ñuy génnee ay sabadola ak feneen ak feneen wax ma ban bijoutier sénégalais mooy am ci or boobu di ko defar di ko jaay. ils vont à Dubaï. Hmm. ils vont à la Mecque ils vont dans d'autres pays. Hmm. di wuti or pour ñëw di ko indi di ko jaay or bi fi nekk on a même pas un comptoir commercial te mu waroon am comptoir commercial. ci wàllug or waroon am comptoir commercial ci wàllug bant. Hmm. tey ji ñu ngi jël suñu bant di ko yóbbu ñu ne la Gambie moom mooy exporter bant te amul garab. parce que boobu dagg nañu suñuy garab ñun. li ñu moom bés bu ñu ko moomee. li ñu am bés bu ñu ko moomee dëgg. bu booba laay mën a jàpp ni changement systémique jub jubal jubanti leeral. ak yooyu yëpp mu ngi commencé dox pour le moment. vision la ñu am. ak bëgg-bëgg ak mbébét mais bu ñu nax sénégalais yi et c' est là où c' est important dans la communication. parlons au sénégalais mais avec un langage de vérité ne leen nii la demee. Euh, parce que bu ko deful retour de bâton bi Pape Alé doon wax. Ah, foofu lay feeñee. waaw man lool li ma ciy wax mooy euh, li ëpp solo. mooy lépp luy jóge ci pétrole bi ak gaz bi. Mhm. nañu ko investir ci ay ay ay activités lucratives. Mhm. yoo xam ne dina jural xaalis réew bi. Mhm. nit ñi dinañ ciy liggéey. muy jural xaalis réew bi. yokk taux taux taux de croissance bi. parce